bokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ak di ñu seetaan fa ñu mën a nekk ñi ngi am mbégte mu rëy di leen nuyu fii ci biir jumaay Touba ci turu daairatu muqaddamatul xidma ci njiitul sëriñ Afiya Buso nuyoo boobu nag ak siyaara bi ñu di ko tàmbalee ci seex Muhammadul Muntaqa alxalifatul aam li taifatil muridiya di ko ñaanal sunu borom mu kattanal ko te may ko wér ba yéene ji mu am ci liggéeyal sëriñ Touba lépp mu defee ko ni mu ko bëggee di fàttaliku nag di ñaanal kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo sosoon daayira bi di Cheikh Saliou Mbacké radiallahu anhu mi nga xam ne ci ak nekkam la liggéey bi sosoo woon mu ta samp daayira bi jox ko itam ay ndigal yu yi muy taxawee ba bis ni ko tey ak kilifa yi nga xam ne itam kilifteefu daayira bi jaar na ci seen loxo te ñu taxaw ko taxawaay bu rafet muy Cheikh Mouhamadul Amin ak Cheikh Sidil Muxtaar te ñoom ñëpp kenn ku nekk doy la woon daayira bi lool euh, bàyyi woon ko xel lool di ziyaare itam ni ma ko waxee léegi ci tàmbali bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne naka jekk moo ma moo ma sa nekk sunu kilifa di ñu taxawu ci kanamu ay kilifaam ba tey mu nekk kilifa yoon wépp kon ñu ngi leen di nuyu ci turu daayira Muxaddamatul Xidma daayira Muxaddamatul Xidma nag ab daayira la boo xam ne mu ngi sosu ci atum 1994 ci weeru mars ci ndigalul Cheikh Saalihu Mbacke mu am ay ndigal yoo xam ne moom la ko sëriñ bi jox am fu mu tàmbalee ba agsi fii mu agsi fii mu tàmbalee mooy bale jumaa ji ak lal tapp yi ak taqale sàpp yi ak euh, taqale góor ñi ak jigéen ñi foofu la tàmbalee woon ñu dox tuuti sëriñ bi joxe ñu digal ñuy amal bayaan yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci jumaa ji mooy xutba yi nga xam ne ñu ngi koy firi ci wolof ñu di ko taxawee sëriñ bi itam dollil ñu ci julli yi di ñu di ko taxawee mu dem ba mu yàgg mu dolliwaat ci pénc mi wax ne am na yu mu fi déggoon yoo xam ne bëgg na mu jóge fi yooyu bokkoon na ca ñi fiy nekk di yalwaan am na nu meloon ñun ñëpp xamoon nañ ko njaay mi nga xam ne moo nekk ci biir pénc mi sëriñ Saalihu wax na nañ ñëpp dem ca marché ya am na itam ñu fi nekkoon daan weccee xaalis tudde woon nañu ko sax weccatu jumaa ji wala weccatu tubaa yooyu yëpp mu ne na fi jóg am na ñu fi nekkoon daan géew itam di euh, diiwaan ñooñu itam mu wax ne nañu fi jóg ak yu demee noonu rawatina ñi nga xam ne dañ daan jaay jaay moo xam ne day màcc jëm ci luy xaw a nuru ak njabar yooyu yëpp suñu borom tabaraka wa laaj ci barkeb Sëriñ Tuubaa dimbale ñu ba ndigal yooyu yëpp ñu taxawee ko bi ñu demee ba mille cinq ndigal yi nga xam ne moom lañu ñu sëriñ saalihu muñ ca jox mooy euh, dog yi nga xam ne ñu ngi koy def ci weeru koor ak waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir jumaa ji ci weeru koor ca jataay boobee ca la joxe woon ndigal nag ne sareet yi nga xam ne itam dañuy jaar ci pénc mi ak oto yi nga xam ne dañuy sëf sobe muy oto yu vidange yi yooyu la sëriñ saalihu joxe woon ci ay ndigal bi cheikh mouhamadul amin dikkee mu dëgëral yooyu gën a dooleel daayira bi gën koo taxawu ci fànn gu nekk itam Cheikh Sidil Muxtaar itam kazalika xam ngeen ne moom ci jëmmi boppam sax lu jiitu daayira bi di sosu yii ma lim bari na ci yoo xam ne moom moo daan taxawu tere yooyu bi daayira bi juddoo nag ci 1994 mu gën leen a jàppale gën leen a taxawu di leen soññi waxtu wu nekk ba ni mu jiitee yoon wi itam mu taxawu leen taxawaay bu rafet Cheikh Mouhamadul Mountakha mi itam Serigne Saalihu boole woon ni ak moom mu nekk suñu kilifa di ñu taxawu ci yu bari dox suñu diggante ak moom ci lu baree bare ba euh, ni daayira bi egsee fii dara mësu ko cee ump kon loolu mooy daayiratu muxaddamatul xidma ci tënk yeneen yi ci dolliku nag yu bari la waaye ndax mën nañ cee boole ni bi comité d'organisation màggal Touba soso daayira muxaddamatul xidma membre la ci biir comité d'organisation màggal Touba moo amee dalal kilifa kilifay diine yi nga xam ne ñooy jóge ci réew mi di ñëw ci màggal gi xew-xew yi nga xam ne ñi nga am ci dëkk bi itam bari na ci yoo xam ne sëriñ bi dana leen ci woo di leen ci jox ay ndigal ñu di ko taxawee ak yeneen yoo xam ne sëñ bi lay soob ci coobaree boppam rek mu sant leen ko ñu defale ko ko ni nga xam ne noonu la leen ko sante loolu yooyu yenn la ci taxawaay yi nga xam ne moom la rek daayira Muxaddamatul ma di taxawee li taxal nag li tax nag euh, ngeen ñëw fi tey te mooy euh, taxawaay bii nga xam ne yeesalaat nañ ko ci fan yii ñu nekk te yokk cat gi ak kaaraanga gi ci barab bi nga xam ni mooy jumaa ji ak pénc mi ndigal la lu bàyyikoo ci cheikh Mouhamadul Mountakha mu wax ne nañu yeesalaat taxawaay yi euh, defaraat barab bi ba mu gën a méngoo ak li nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane woon te loolu lépp ndigal loolu lépp tey jii nekk ci loxoom euh, mu digalaat ñu taxawaay boobu ñu gën koo yaatal ndax fi jamono toll ak ni penc mi mel te muy loo xam ne teg na ci bëtam moom mu bëgg nag ñu yokk taxawaay boobu ndax dafa mel ne euh, am na yoo xam ne ñu ngi romandaat di ñëwaat ndànk-ndànk te suñ ko teelu te mën naa doxaat ba delluwaat fa nekkoon soññee boobu nag moo indi opération bii nga xam ne amal nañ ko ci jamono yi ñu toll loolu nag am na lu ma jur lim jur mooy euh, am na lu mat téeméeri nit ak juróom ñeen fukk ak juróom benn yoo xam ne euh, téye nañu leen fii ci fii bokkul nag waxuma rek ñi nga xam ne amante nañu ñoom maanaam woo leen ñu ñëw ci biir jumaa ji ñu wax ak ñoom loolu moom lim bu baree bare bari la waaye ñi nga xam ne téye nañu leen ngir ay yëf loolu toll na ci téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn 196 personnes yoo xam ne dafa séddalikoo ci yii may bëgg lim am na ci ñoo xam ne dañoo am. jafe-jafey kër ba génn seen kër dem di wërelu ba yàlla dogal ñu for leen fii am na fi ñoo xam ne dañoo am ay jafe-jafe seen diggante ak seen wayjur ak ñàkk a juboo am seen diggante ba ñu génn def li ñuy tuddee fàq ñooñu itam am na ci am na ci ñoo xam ne xëy na du seen waajur lañ amal jafe-jafe waaye seeni waajur ci seen diggante ñoo am jafe-jafe ba ñoom mënatuñ koo dékku ñu génn seeni kër dem am na fi ay dongo yu daara yoo xam ne dañoo dawee ci seeni daara am na itam ñu jóge ci ñu dawee ci yeneen yeneeni dëkk yeneeni réew ñëw ci biir dëkk bi te xamuñu fi kenn ñu for leen fi am na fi ñoo xam ne dañoo ñëw di def lu nuru ak njabaraan wala ñuy tuddoo ñu ñu doonul di wane ne doomi diw lañu wala sëtub diw lañu te loola wérul am na fi ñoo xam ne dañ doon tuxal alali jàmbur maanaam dañ doon sàcc am na ci ñoo xam ne itam dañu doon màndi wala ñuy jëfandikoo luy màndal wala ñu yor ko am na ñoo xam ne itam dañ doon taxawaalu rek mel na ñu dëkkul fenn am na it ñoo xam ne euh, yu mel ne nu jaxasoo googu ñu doon wax ci penc mi dañ ko fee indi woon muy indi fi embouteillage bu xaw a bari ñooñu bokk na ca def gi ñu ko defoon lu mel ni ab garage oto yi dafi taxaw di woote euh, coxeur yi ak chauffeur yi jaxasoo fi bay egsi sax di woote ci kaw ci bunti jumaa ji am na ci itam ñoo xam ne ay góor ak jigéen lañ ak way laa ko yoo xam ne dañ daan nekk ci penc mi di kar nit ñi am na ci ñoo xam ne dañuy seere ba génn ngir ñu duggaat seen oto sax jafe-jafe lay doon wala ñu egsi waaye ngir ñu wàcc seen oto dugg ci biir jumaa ji sax jafe-jafe lay doon ndax dañu leen di kar di leen sonal coono bu metti te loolu am na lu ñu ci sëriñ Saalihu Mbàkke waxoon bi nga xamante ne mi njëkkoon na ko tere ci jumaa ji te ñi fi nekkoon ñu ci bari daw dem ci biir këram wala ci buntu këram bii jàkkaarloo ko sañ Daam fii la ñu toog waxtu 3 heures ci bëccëg ci weeru koor mu yónnee ay ndaw wooluñu ñu daw fekk ko mu toog ci buntu néeg sëñ Modou Badar bii tey sëriñ Moussa Niang yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal fekke na ko sëriñ Change bu Cissé moom itam fekkee na ko ak ñeneen mu wax ñu boppam ci làmmiñu boppam ne yëg naa ne penc ma la ma ca doon tere taxawal ngeen ma ca ba mu dañ waaye ñi nga xam ne ñooy ware ñoo fa doon yalwaan ak di sonal nit ñi dañu faa jóge tàbbi ci sama biir kër gii ba am na fi ñoo xam ne danañu ñëw ci biir kër gi ñu teral leen ba seen xol sedd waaye bu ñu génnee ci bunt bi danañ leen fi def loo xam ne dootuñ fi bëggatee dellusi kàddu googu ci làmmiñam lañ ko dégg woon ñun ñi demoon te jataay ba ñu ci bari ñu ngi fii waaye sëriñ Moussa Niang fekke woon na ko sëriñ Souhaïbou na ko ak ñeneen ñu bi am na ci ñoo xam ne njaay mi ñu doon tere ci penc bi dañoo commencé waatoon di dugaat ci biir penc bi kon fukki yëf ak ñett yooyu mooy ñi nga xam ne euh, euh, ak euh, yooyu mooy yi nga xam ne Euh, jàpp nañ leen ci penc mi ci biir ñooñu nag am na ci ñoo xam ne dañoo waxtaan ak ñoom xamal leen lii bëggu sëriñ bi ak yi nga xam ne moom lay tere ci penc mi niñ ko war a moytoo bàyyi leen ñu dem waxtaan ak ñoom ci njëkk ak teranga am na ci ñoo xam ne nag ñoom la def mënula ñàkk àgg ci yoon dañ leen jëbbal yoon ñu saytu seeni mbir am na ci ñoo xam ne itam ci biir ñi jàpp ñu def ay tojaanga yu rëy la ñuy doon yoo xam ne lu ci jar laaj lu ngeen ci laaj itam ci lu ma des mën a leeral des na ko leeral waaye bokk na ci itam ci taxawaayu daayira Muxaddamatul Xidma saytu armeel yi yu njëkk yi di morgo bii nga xam ne moo nekk ci penc mi ak euh, armeel yi Baqiyan foofu itam danañ ci tënk tuuti rek lu loo xam ne ab tàmbali lay doon mooy dañuy sart ci képp koo xam ne dafay ñëw buy ñëw mu ënda fekkente ne dafa faatoo ci hôpital mu indaale certificat de décès buy wane ne dafa feebaroon faatoo ci hôpital wala bokk dafa accidenté woon faatu certificat de genre di mort dana koy ëndaale boo xam ne dana wane lan la faatoo su fekkee dafa faatoo ci kër dañuy dem ca chef de quartier ba mu bindal ko aw kayit xam le ne fii la dëkkoon dara dalu ko wala daa feebaroon tëdd ci néegam faatu ba ñu xam ne amul dara loo xam ne moo ko rey ci ab tënk daal lii laa mënoon a ubbee li ci nag ma di leen déglu lu ngeen laaj te tontam nekk fi incha allah dañ leen ko tontu. jërëjëf laaj nga laaj bu am solo euh, bu dee ci ñi nga xam ne ñoo yore doxinu yoon ci dëkk bi baaxoo nañu ndigal yu mel nii saa bu ñu ko amee dañuy dem toog ak ñoom gaaral leen li nga xam ne moom la ñu bëgg moom la ñu sëriñ bi sant ñu war koo def su ko defee ñoom seeni ndaw dañuy ñëw toog ci barab bi ànd ak ñun ci liggéey bi loolu noonu la ñu def xam nga ni fii zone police la police euh, mën nañoo wax ne am na ñoo ñoom collaboration bu rafet ci wàllu liggéey bi ba tax na ñi ñu fi jàpp sax ñëpp police ba mu lañ ko jébbal amuñook ñoom ci benn jafe-jafe ci wàllu liggéey bi ndax ni nga xam ne noonu la ñuy doxalee ak ñuy jàpp benn jafe-jafe da amu ci amul it benn violence euh, bu dee wàllu safinatul amaan itam rapport bu rafet la am suñu diggante ak ñoom muy lu euh, seq li ñu seq lu rafet rek la ànd itam liggéey bi ñu dañuy jàppale ñu di leen jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéey loo itam comme ni nga ko waxee dañ leen di tàggat ndax képp koo xam ne dafay liggéey ci aw nit xam nga jumaa ji ajjuma ju ne lu néew néew néew lu ëpp ñaar fukki junni nit danañ fi ñëw ñaar fukki junni nit nag kuy jëflante ak ñoom par semaine bu ñu la tàggatul yaakaar naa doo mën a liggéey ak ñoom te euh, ajjuma yi ñuy ñuy liggéey ak kori yeeg tabaski yi moo gën a xat bu dul màgg ak ak màggali ak màggal yi nga xam ne ñooy am ci biir dëkk bi yooyu yaakaar naa moo gën a xat penc mi bu fi dara xewul teewul nag su opération yu mel ni amee dañ leen di dajalewaat gën leen a tàggataat ci doxi bi nga xam ne moom lañuy dox ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy jëflanteel waaw daanañ ko ci am nag daanañ ko ci am ci yi nga xam ne moo daan weesu waaye bii moom yàlla defal nañu ci tawféex joo xam ne euh, mën naa wax ne bi ñu ko tàmbalee ak léegi jafe-jafe amu ci ndax euh, xëy na nit ñi gën nañoo miin daayira bi mbooloo mi gën nañ koo xam gën nañoo itam am compréhension ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ba tax na amuñu fi ak kenn benn jafe-jafe coow sax yaakaar naa amu ko fi benn yoon. fi mu xaddamatul ma jëm mooy fi ko sëñ bi jëmloo rek fi ko sëñ bi jëmloo rek fa la jëm mbooloo la moom murit ni mboolooy murit yëpp nekkee mbooloo murit tey jii fii la ñu sëñ bi di liggéeyloo ci jumaa ji bu sëñ bi soppi woon suñu liggéey itam tey nañu ñëw leen liggéey ko feneen dañuy dem liggéey ji ko foofa ngir liggéeyal suñu tubaab moo ñu ñor mooy suñu yitte tey jii nag fi mu jëm mooy fexe ba lii sëriñ bi bëgg ci penc mi te sant nu ko ñun ñu fexe ba sëriñ bi amee ko ni mu ko bëgg loolu mooy objectif bi nga xam ne mooy jërëjëf xam naa su fekkee ci wàllu ñi nga xam ne ñoom la ñuy téye euh, ci biir ñii ma la wax dama laa limal yu baree baree bare am na ci ñoo xam ne laajul ñu leen di téye ay fan mooy ñi nga xam ne ci misaal mën naa ca ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ak seen waajur dañuy woo seen wayjur ñu ñëw fekk si ñu ci barab bi ñu bokk ak ñoom toog defare leen ba ak juboo am ci seen diggante ñu yadd ñañ ca war a yadd wax ak ñoom te nañ war a wax ak ñoom ba ñoom ñëpp ñu amaatuk déggoo ba ki nga xam ne nekkoon na ci mbedd mi di taxawaalu delluwaat ci biiri bokkam loolu mën naa bañ a jéggi ñaari fan am ñi nga xam ne dañoo jote itam am na ñoo xam ne jote biir kër la muy soxna soo xam ne dafa jote ak moroomum soxnaam ci biir këram ba ay tëkkoonte am ci mu daw te seen boroom kër nekk fi mu daw di bañ ko kii itam nu mel noonu lañ def dañoo woo borom këram fa mu nekk waxtaan ak moom mu yebal fi koo xam ne ab xaritam la mu ñëw jël si ko yóbbu ko këram waaye ñu defare leen ba nga xam ne jàmm dellusiwaat na ci seen diggante ak yeneen yu ni demee bu fekkente ne ñi nga xam ne dañoo def lu defuwut la moom saa ngoon jotee dañuy woo police ñu ñëw jël leen am na fi ñu fi nekk waa police bu fekkente ne koo xam ne sax jërul muy yantu la ndawul police ngi fi ci saa sa daf koy dal di yóbbu moom su fekkente ne koo xam ne mën na leen la dana fi yandu añ naan lim ndox def yëpp bu ngoonee ñu dajale leen jox jëbbal leen yoon ñu bindal ñu kayit su fekkente ne dongo yi nga xam ne dañ leen di for la wala benn benn nit ñi nga xam ne dañ leen di for te ñu réeroon am na ci ay kër yoo xam ne ñan yoo xam ne buñ fi nekkee ba ngoon jot ci kër yooyu lañ leen di yóbbu fekk leen ci condition yu baax dañ fa war a nekkee loo leen xàmmee ak waa kër ga ñu ba ñuy jot seeni kilifa ñu ñëw jël si leen su dee ci wàllu euh, ñooñu nga wax wax naa la léegi nettali naa la léegi li nga xam ne moo amoon ci jamono yi Serigne Saliou ci suñu diggante ak ñoom euh, yaakaar naa Serigne Saliou amul ku ko ëpp yërmande wala ku mën a wax ne moo ko ëpp yërmande ci nit ñi jafe na bopp ndax ñëpp xam nañu yërmandeem waaye yërmande nag dafa dàqonte wut ak nos aw doxin ba kenn bañ a loru kenn bañ a lore waxuñu ne bu kenn yalwaan ca jamono yooyu sax ñun dañu leen dañoo boo jéggee tali bi jàkkaarloo ak jumaa ji foofu dañu leen a bàyyi woon ñu di fi toog waaye nag dafa dem ba ay rax am ci nag mu dem ba ëpp ndax booba xëy na ay benn benn way laago ñoo fa nekkoon waaye dem na ba ñoo xam ne dara jotu leen di ay nit ñoo xam ne mën nañoo liggéey ay góor ak ay jigéen di fi dajaloo ay mag ak i ndaw di kar nit ñi di leen sonal day mujj delluwaat fa nga xam ne fa la nekkoon avant 1995 97 ba nga xam ne ci la ko Serigne Saliou euh, tere woon te loolu soo ko bàyyee mu continuer jafe-jafe bu mel ne ba fi nekkoon lay mujj andiwaat anarchie lay andi loolu moo tax néewuñu leen terewuñu ko yalwaan comme ni ma ko niñ ko waxee woon ba tey bu dee oto yi itam terewuñu oto bu sëf dañoo wax ne su fekkente ne oto yi la nañu génn dugg ci mbedd yi fu ñu fu mën a jëlee seen i client ñu jël ko fa te dem su fekkee oto bu bu demee ne Mbàkke Tuubaa la wala oto yi nga xam ne urbaine la ku toll fii te am client bu bëgg a wàcc na taxaw mu wàcc mu dem su fi tolloo am ku bëgg a yéeg na taxaw mu yéeg mu dem waaye nag bu mu fi taxaw di woote bu mu fi taxaw di woote di ko def ab garage su fekkente ne ñi nga xam ne dañu yelwaan la itam booy dugg ci pénc mi am na fa mu yem boo xam ne lépp tere yi foofu la yem yi ci des ñu tollare ko may leen ñu toog foofa ku génne ci penc mi ci mbedd ngay dugg mbedd mooy dugg mu ne buntu mbedd ma bàyyi nañ leen ñu ñu toog fa ku leen fa fekk sarax leen yaakaar naa ne ku am yéene yi saraxe seen ku toog nee di yelwaan sa digganteek moom mutul fukki mètre yaakaar naa la lay te lay tee nga dem sarax ko ko xëy na ci yow lay doon waaye du luñ lay tere tere wuñu leen am yelwaan dafa am barab bu ñu leen tere barab ba itam nañ ko daan defee nañ fa doon defee moo indi tere gi te loolu yaakaar naa ñu bari teg nañ ci seen bët fi ñu jógee itam ak fi ñu dem matul fukki mètre dañoo du génnee ci li uuf tali bi dugg ci bunti mbedd yi nga xam ne bala ngaa dugg menn mbedd mën nga leen a romb boo leen am boo amee yéene saraxe mën leen a sarax te yàlla tax ñi nga xam ne nag dañ cee raxoon te mën a dem liggéey waaye nekk fi di sonal nit ñi ba nit bu génnee ci jumaa yi dangay gis koo xam ne day mujj sànq aw xelam daw wuti otoom ñu kar ko sax ci otoom ba du mën a dem ñooñ nag moom dañ leen fii jële waaye ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyloo am na ci ñoo xam ne ñu ci ëpp dañuy liggéey ngir yàlla rek ñi ci ëpp dañuy liggéey ngir yàlla rek waaye am na ci ñoo xam ne nag dañu fay dëkk nekk ci barab bi di liggéey ñooñu itam dafa séddalikoo ci ñaari xaaj am na ci ñoo xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma moom moo leen di fay directement am na ci ñoo xam ne itam am na ci ay jàppale yu jóge ci commune bi yoo xam ne moo leen di jàppale loolu mën naa ci tuddul demee ne gardien yi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji ak yi nga xam ne ñoo nekk Baqiyan mën naa cee tuddu personnel bi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji itam di saytu euh, tere yooyu te nga xam ne ñoo depuis 1997 ba léegi ñi ngi fi dafa demoon nag ba liggéey bi yëf yi ëpp leen doole moo tax opération yi mbooloom daayira bépp di fekk saat leen ci biir liggéey na ci it ñoo xam ne ñoo nekk ci morgue bi di ko setal ak ñoo xamante ne bi ñoo amee liggéey yi nga xam ne moom lañ fay def yëpp te mooy organisation bi ñu yore bureau ba ñu yore cet ga ñu yore organisation yi ci biir bàqiya ak yeneen ñu ni demee ñooñu ñoom ñi ci ëpp daayira bi moo leen di fayal boppam ñenn ñi deme ni garñee yi ak yooyu commune bi moo leen di fayal daayira bi waaw loolu itam ñi ngi ci xalaat euh, ñi ngi nos sax euh, dafa mel ni euh, buñ ko xoolee lañ njëkkoon a jàpp moo doon opération bi nekkoon une semaine waaye biñ demee doxee une semaine te gis na yëf yi itam jeexul dañoo continuer euh, di def bis bu set am wàññi wàññi nañ mbooloo mi nga xam ne nag ñoo fi nekkoon waaye teewul bis bu set mu ñu sàkk ab lim boo xam ne dañuy mën a ñëw ya ñii xëy si ñii gont si amal li di wéyal liggéey bi ba mu gën a set waaw eh, wax nga dëgg laaj bu am solo la jamono yi ci ginnaaw am na ñaari samba boy yoo xam ne jàpp nañ leen ci biir Bakheng ñu doon sàcc boppi eh, eh, pavillon aluminium yi nga xam ne ñoo fa nekk ak lenn ci ay mbàjj yoo xam ne dañ ko lal ci ay barab lool nag naka jekk daan am daan am itam ci armeel yii xëy na nag ne mu siiwee fee siiw daawu ko siiwee léeg-léeg ñi ko seq ñoo ko daan xam waaye mi ngi daan am tey ñi ngi leen daan jàpp itam comme ni ñu leen jàppee nii raw ci xëy na mën naa doon benn yoon ñaar yoon nga raw waaye di ci raw yombul ndax waxtu wu ne ay nit a nga fa te am na ñu nekk ci biir di saytu saytu kooku sax ci lañ leen jàppe li nga wax itam dëgg la doon nañ sàkku ñu yokkal ñu sécurité bi waaye xëy na itam ñu ngi koy séntu ba léegi am na ci loo xam ne agseegul teewul nag ñun yokk nañ suñu vigilance ak mbooloo ma nga xam ne ñoo fa nekk di gën di saytu dafa nekk waaye nag bu dolli ko it nag ñu jël waa ñooñu am na ci ñoo xam ne dañoo sàcc am na ci ñoo xam ne dañoo yor ay ngànnaay lu mel ne ay paaka ak ay dàngam doon tafu ak sàcc ak yu mel noonu am na ci ñoo xam ne dañ doon màndi wala ñu yor drogue wala lu ni demee démb sax jàpp nañ fi koo xam ne moom maar détail dafa wax ne dafa rey nit daw ak yeneen yu demee yëf yi xeeti ndëngte yëpp daal la ñuy jàpp waaw bokk ci daayira bi jafewul xam naa sart yi nga xam ne moom lañuy laaj rek mooy na nekk ab jullit d'abord nekk koo xam ne itam dana man li nga xam ni moom la ñuy deflu te man koo def ngir yàlla te bu koy def itam mu def ko rek ci ci euh, ak sellal bañ cee dugal lenn lu ci bokkul lenn lu ci bokkul mooy du lu ñuy leblee du lu ñuy faye bor dañ koy def ngir yàlla ak jëfe ndigal li nga xam ne moom lañu ñu sëriñ bi sant su ko defee bu ñëwee nag dana mën a bindu am kartam des na ko formé danañ koy bàyyi xel itam ba xam ndax li mu waxoon ba dugg ci mi ngi koy sàmm mi ngi sàmmanteeg moom wala déet danañ koy gëstu itam ndax ku jub la wala daa doon koo xam ne dafa ñëw rek bëgg a làquti ci mbir mbooloo waxtu bu ñu demee ba xam ne yëg nañ ci moom genn jubati wala goo xam ne daana ko def wala mu melowoo ko bu boobaa dañ koy daal di ci mbooloo mi ci saas xam nga barab bi dafa yàgg am ay jékki-jékki rek gis dara muy génn di dox lu demee ne yi ñu fi barab bi barabu jaamukaay yàlla la te léeg-léeg nga gis koo xam ne day ñëw tourné ab kilibam yaakaar naa am na ay jamono mas nañu fee dégg ku siiw ci réew mi koo xam ne euh, ab taalibe la sax waaye nag lam doon def méngoowul ak barab bi jàppante woon nañ fi ay jàppante yoo xam ne bu ngeen bàyyee xel dangeen ko fàttali ko lu mel noonu nag ginnaaw amoon na fi bañ egg ci loola ba ku fi ñëwati di filmer da ngay ñëw tàggoo am na commission communication bu fi nekk mu xam lan ngay def su dee loo xam ne ni lu jub la amul benn problème mën ngaa mën nañ la sax jàppale ci ñi nga bëgg waaye nag su fekkente ne da ñëw rek di filmer te xamuñu li ngay filmer fu mu jëm ak lu mu doon ak ci loo koy doyee ji mën nañoo jekki-jekki rek su fekkente ne ku ñëw ñu bàyyi la nga def loolu mën nañoo jekki-jekki gis loo xam ne dañuy wër di weddeeka coow te fekk bañ koy def ñu ngi fi déedéet nag tu tudde moom mësu cee am tudde mësu cee am danañu am nag ay gan yoo xam ne xëy na léeg-léeg ñu ñëw fekke si li walla bokk ñoo xam ne xëy na dañu leen invité ay kilifa yoo xam ne dañu leen invité ñu ñëw fekkee si waxtaan wi fekkee si ndogule loolu lañ ciy jublu mooy yaatal lu baax waaye nag tudde wala ndeyale wala wala yooyu moom mësu cee am danañ seet nag kilifa goo xam ne xëy na mën nañ koo invité mu ñëw bu ñëwee gis liggéey bi xëy na mën na koo mën na cee indi xalaatam bu gën a rafet wala ay nit mën a jaare ci moom xamee ci li nga xam ne ñu ngi koy def fii ci liggéey bi lislaam xëy na bañu bëggul yalwaan waaye bañul yalwaan bëggul yalwaan mooy encouragé wul yalwaan lislaam encouragé wul yalwaan nit nag dana toll foo xam ne lislaam dana ko may mu yalwaan xam nga lu bari wolof day day jaawale dafa am loo xam ne dañ koy tuddee lu dagan lu dagan am luñ tuddee lu war wolof nag diggante lu dagan ak lu war daf koy jaawale lu bari lu war mooy loo xam ne nit ki daf koo war a def daf koo war a def dafa jaadu ci moom mu def ko lu dagan muy loo xam ne nit ki man na koo def mën na koo bañ a def yalwaan nag mën nañ ko dugal ci cadre bi loo xam ne nit ki mën na koo def man na koo bañ a def man na koo def su fekkente ne loram àgg na ca lor yi nga xam ne loru na ba àgg ci loolu foofa lislaam dana ko ko may dana ko ko may nag bokkul ak waral na ko ci moom nit ki su demee ba loru lor goo xam ne amul menn pexe mu fasas mu dul yalwaan lislaam may na ko mu dem yalwaan ci biir yalwaan moom it nag euh, waxuñu ko mu mu sonal kenn ci biir yalwaan yi waaye day laaj ku yàlla dogal mu am lu mu ko jox mu jox ko ko ku yàlla dogalul mu am lu ko jox mu bàyyi ko fii nag li ñu fi gis daanaka mënees na koo tudd mënees na koo tudde sax foqati ñun ñëpp teg nañ suñu bët mënees na ko tudde sax foqati foqati nag mu lislaam sant ko kenn ki amul ki war a yalwaan na toog ñu xam ne kii de yalwaan ñu fekk ko fa sarax ko lañ koy sarax ay jullit lañu kenn ku nekk xam na tiyaaba ji nekk ci saraxe ñoom itam baat bi ñuy jëfandikoo demeewul noonu terewuñ leen yalwaan waxoon naa ko léegi maa ngi koy waxaat terewuñu leen yalwaan dafa am barab yoo xamante ni bii dañu leen tere ñu ëngam loo fa di kar nit ñi ak di leen sonal waaye ci wetu barab boobu may nañ leen ñu toog fa akook dal ku leen fa war dara leen fekk jox leen lam leen di jox amaa daayira bi nag li nga wax ni lu jaadu la am nañ yéene ji buñ sañoon fu ñu war a yóbbu ndimbal danañ fa yóbbu ndimbal waaye nag am nañ lu leen doy sëkk ci seen biir fii loo xam ne fii la ñuy tàmbalee parce que bu ñu demee ba seen doole àgg ci mu mën a génn génne ko lañ mën nag ñi ngi koy def ci ñi nga xam ne ñoom la mbay day tàmbalee ci sa biir weewu tàgg ñooñee nañu soxlaa ndimbal la ñu amee ci suñu biir fii ci biir jumaa ji ñoo xam ne dañoo soxla ndimbal te bari lool te nekk itam ci li nga xam ne ñoom la leen sëriñ bi di def loo waaw soxna soosu kenn la rek maanaam xëy na borom këram siiw na doon nay wax ci média yi ak yu mel noonu loolu moo tax mbiram mel ne moom dong moo ci feeñ waaye ñu bari ñoo feeñ ci biir lii ñu bari am na ci ñu bari ñoo xam ne dëkkuñu woon ci dëkk bi comme ni nga xam ne moom moomu dëkkutoon ci dëkk bi ni ñu fare ñëpp itam noonu rek lañ ko fare ci biir jàppukaay yii ci ginnaaw lañ ko fekk mu toog ñu woo ko mu ñëw ñu waxtaan ak moom mu nëbbu ñu itam waxuñu ne soxna Omar Sall la waxoon naa ko ci biir reportage bi weneen tur la ñu jox waxuñu ne am na borom kër daf ne gone la amagul boroom kër tantaam la nekkal yoo xam ne daf koy bundaxataal di ko sonal mënatu la dëkk ak tàntaam ñaari waay juróom dañoo génn àdduna léegi nag nijaayam la dese dafa bëgg dem ci kër nijaayam loolu lañu fi indiloon ci biir gëstu yi ñu doon def nag di gëstu nijaayam yooyu mu waxoon fañ dëkk ci cubeen ci lañuy def ay jokkoo ba jot ku dëkk ci dëkk boobee di cubeen bi mu waxtaaneek moom expliqué ko kooke moo ñu wax ci téléphone nañu am na magam ju ñuy wax Mouhamed njaay ju nekk Dakar jàpp naa ne su ngeen ko wooyee moom moom ay doomi bàyyi lañu taxul sax ndax euh, soxna si nanga woon wax ne moom Njaay la sant waaw léegi nag ba ñu wooyee Mouhamad Ndiaye moom i Mouhamad Ndiaye ne nañ ko yónnee fotoom ñu yónnee ko fotoom Mouhamad Ndiaye ne kii kat rakkam jooju la ñu seen ñaari baay ñoo bokk ndey ak baay soxnas Oustaz Omar Sall la ci lañ kàddu googu ci suñu nopp ci lañ def nag effort ngir jéem a xam numéro Oustaz Omar Sall ba jot ko wax ko ko dem si ko ginnaaw dafa réeroon nag teñ ci doon tudd naan dañ koo jàppal dafa dañ koo nangam ñoom itam bi ñuy ñëw jàdd nañ ci yoon def seen déclaration bu ñëwee ba expire ñun bu ñu leen koy jox yoon da ciy doon seere dañ koy tegaat ci loxo yi yoon ñi nga xam ne ñoom ca lañ kalaame ji woon yoon jébbale leen ko boppam loolu moo ci am yoon ah kay loolu euh, murit yu bari ñaawlu nañ ko te itam ñun itam ñaawlu nañ ko euh, xëy na ñoom ni ngeen ko xamee rek société yu bari dañuy def form loo xam ne publicité lay doon xëy na dañ koy nëbbaale nag dañ ko tuddee publicité dañuy indi wane ne dañuy jàppale nit ñi ci nangam ak ak nangam waaye seen publicité lay doon waaye teewul nag ñi ngi ciy waxtaan ak ñoom ngir loolu xëy na mbuus ku nit ki mën a def ay dàllam ba du taqal du taqal ay yéeram du taqal barab bi mu koy def baax na ginnaaw ay dàll lañ ci def te dàll day tax sobe te barab bi tam barab bu sell la te nekk na ci xolub murit yëpp war nañoo bàyyi xel li leen di jox ba bañ cee def netaal boo xam ni dana jaaxal ki nga koy jox su noppee nu mu koy def loolu ñu ngi ciy waxtaan ak ñoom incha allah ni naqaree ñëpp lañ waa xam nga wax naa la léegi ne la yëf yi dafa am fu mu tàmbalee am fu mu yem waaye Touba ci kanam yi tam bi ñuy samp dañoo ñëw ba ci daayira bi ñu ànd ak ñoom dox ba àgg foo xam ne mën nañ faa teg yëf yi tàmbalee ci ñoom wuti bi ginnaaw ñu samp fa jékkiwuñ njëkk rek ñëw samp fi ñu bàyyi leen fi jékkiwuñ njëkk rek rek ñëw euh, def li ñu bëgg a defee dafa tolloog boo xoolee ni nga wax nii Touba ci kanam am na fi maa rahmati am na fi yeneen ak yeneen am nañ fi waaye ñoom ñëpp nag kenn ku nekk dangaa dem ba ci buntu mbedd ma nga tàmbalee fa dugg ci biir mbedd yi genn waaye lii lii lii digg biir penc mi yaakaar naa kenn nekku fi léeg-léeg nag léeg-léeg nag événement dana am màggal dana am walla yu mel noonu màggal bu amee dana am yoo xam ne xëy na lenn nat yu ndaw ndawaan yoo xam ne danañ ko may ñenn ñi lu doon ñëpp nag ndax boo ko defaatee ñëpp encombrement bi nga doon bañ day amaat waaye màggal moo bindoo noo xam ne mu am cas exceptionnel yoo xam ne da ko may yan yi mooy li nga xam ne da koy gis léeg-léeg màggal lu mel ne Touba ci kanam am fu mu fu kii wala yu mel noonu ñoom it nag xëy na am nañ taxawaay boo xamante ni bii dëkk bi comme ni nga ko waxee ak yeneen xam ne ni ñoom dañoo seq liggéey bi ñu yor ndigal ci wàll gi ñu yor ñu yor ndigal ci wàll ba juboo ci yenn yoo xam ne des na ko man te du yàq ci liggéey bi dara waaye nag loo xam ne day ñëw xajamal liggéey bi ci biir nag moom